waaye dëkk ngeen fi ci mbaw Concorde batay rek ñi ngi kon taxaw ak eh, imam imam Ratibu eh, juma ji ci mbaaw Concorde eh, Ardo Ndaw jité ko kon di délégué bi ñu andi seeg ci tonto yi ñom tonto Cheikh ndjay ak ñom Baye Moussa Diop sha allah ci liggéey bu rafet bi ngeen gis ñom tonto ndjay ñom itam nekk ci liggéey bax a di len ziar rek imam ñu bàyyi la rek nga daal di nuyu ak mbokk yi ben TV Sénégal ya ngi direct rek ak ñom ablay ci italy di len ziar bax a ñoo ñu vidéo yi fofu imam ñu bàyyi la nga nuyu rek daal di wax tout rek ci kàddu yi nga xamni bëgg nañ ko ci yow nga sànni ko ci ci sen bi BNTV Sénégal. macha allah macha allah alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñoo ngi dolli di santat yalla bu baax di julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu bàcc ak ñi mu bokkal liggéey bi yeb di ñaan yalla barkel ko fekke nañ ren korite gi yalla nañ ko fekke dewen yalla bay ñu fi te may ñu wër ak katan di leen ñaanal yeen ñepp ñi nek italy France amerique fu way ne doon Sénégalais Don julit ñoo ngi ñaan yalla mu may la jamm te barkel sa liggéey ganaw lolu nak moy liñu wax rek doomu adama julit amul leneen luddul jamm yalla yalla def ne wa ma insa wal jinna illa liyahbuduni binduma kenn ci ñom ñaar ñooñu muy jinne muy nit ndare ñu jamuma ma bëgguma ñu leyal ma ci dara ndax lepp mako yor man yalla kon jamu yalla dafa bax fu ngeen ne bu leen fàtte seen juróomi julli waxtu yi ak góorgóorlu digante diggante da fay nango dimbalé moromi jullitam ak kenen ko dul julli sax dimbale surtout tout tanki nak ci wajur surtout tànk yi nga xamné daño nek seni wajur ci kër yi ngay liggéey sa wajur nek bi di démarrer ba nek 60 ans 70 ans 80 ans te yor dépasse ba tay lolou dafa jaaduwul te yit ñu né avancement lañ bëgg dañuy soppi soppi nañ légui soppi nañ te yalla def né la yukhayyiru ma llaahu bi khawmin hatta yukhayyiru ma bi anfusihim léegi nag comme ñun ñoo soppi la tax soppi gi mën a dox mën a am njëriñ ci ñun lay jóge mooy ñu jóg simmeeku dem liggéey kon daal mel ni say kàddu yi ma dégg ci eh, waxtaan bi sàng di xutba bi mu mel ni kon rek eh, liñ naan toog di muy dox jeex na ñu ko ñenn ñi di ko weddi. kon daa mel ni kon nekki dañoo war a jaare fii nag jóg nag xidma ji ngir mën a teral suñu bopp teral suñu waajur. bien ndax loolu buñ ko defulee soppi du am benn njëriñ parce que tëdd di nelaw ba midi jóg di laaj ndekki wala añ bëgg réew mi dox loolu du doxal réew. lii doxal réew mooy nga simmeeku dem liggéeyi eh. teral say waajur teral sa bopp wallahi loolu rek moo mën a doxal réew mi président ñu ngi koy ñaanal yàlla may ko jàmm li mu tax mu jël réew mi yàlla xam na ko mooy yor jàmm réew mi looloo tax ñu doon ñaan képp ku jàmm réew mi nekk sa loxo yàlla na ko ko yàlla jox yàlla jox na ko ko yàlla na ko dimbale ba mu réussir total ci barke rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñu ñaanal ñëpp sant ñëpp gërëm ñëpp bañ waaw yaag sa équipe yëpp santal nañ la bu baax amin fay amin amin acca kooku mooy suñu imam maa ngi doon jël bàyyi misaa day daw <laughs> ñoom ñoo yor liggéey ñoo yor liggéey bi moom ak euh, tonton Cheikh Ndiaye waaye dafa daw fu nekk nii muy euh, suñu euh, toos koy seen naa leen ñu fii ci jumaa ji nekk fii ci mbaaw Concorde ci quartier bi nga xam te ne nii suñu tonto délégué Adda Ndaw moom moo ko jiite waaye nag ànd ceeg ñoom imam Adama Faye macha allah nag ñoom tonto Cheikh Ndiaye ah, ñoom Serigne Moussa Diop di suñu tonto di suñu xarit ba pare def ñu morom nag macha allah nekk ci liggéey bi ñaan suñu borom yàggal leen fi lool ah, te may leen wér dafa leen tawfiq ak taysir ba lépp lu ñu namm ci liggéey suñu borom subhanahu wa taala mu may leen ci lu kaw seen jot ci barke Seydina ñu leen ijaar baax baax di leen ah, baal àq di ñaan suñu borom boole ñu baal jërë ngeen jëf ba déwén ak